asmau sitta romboon nañ baat yi nga xam ne dañ leen i'raab ci maska tey nag ñu ngi ñëw ci baat yi nga xam ne dégg nga dañ leen i'raab ci xaraf mu huutu maska ba ñu jàngoon asmau sitta mu bokkoon ci nga xam ne ci xaraf lañ koy i'raab jaa abuka raaytu abaka marartu bi abika ñu waxoon ne dafay rafaa waaw dina sabe alif di jëre yaa yooyu ay xaraf la huutu ci maska ya tey nag ñu ngi bëgg jàng al musanna moom it mu ngi bokk ci yi nga xam ne ci ay xaraf lañ leen arabe dégg mu wuti ca masque ba mu ne musanna na nga ko rafaaye alif alif xaraf la lan mooy musanna baat la buy tegtale ñaar ñu yokk ca muj ga mu mën a rafle ñu mën see atfu lu mel ni moom ñu mën see tofal lu mel ni moom lafzun daalun ala snayni بزيادة في آخره صالح للتجريد ولو صالح للتجريد وعطف مثله عليه لول مودي مسنى بات لا يدون بي تكتلي نيار لول بيب مسنى رك دوغنا سيكم الزيداني الرجلاني واي لدول مسنى يدن دوغو سي بات بي تكتلي نيار نيكي شفعون شفعون تولنتي لي فيري مانام نيار شفعون موي نيار لو خمنا نيار لا waaye bañ waxee ne dangaa war a yokk sa mujj ga ci la chafun génn dégg nga ndax chafun yokkuñ dara ci mujj la nga yokk ci mujj ak musanna nag mooy alif ak nuun walla yaa ak nuun ci ñëw dégg nga amma yokkuñ dara amul alif ak ci mujj ga amul yaa ak nuun euh, bañ waxee ne saalixin li tajridi musanna foo mu nekk lu mën a rafle maanaam foo nga mën a tudd mufrad ma ci lañ génne lu mel isnaani gi firi ñaar كوكو منوكو منو تد مفرد من منو اسم خم نو زيدان من غاو زيد وزيد زيد اك زيد و اسنان منو اسم واسم كين دكو واخ اسنان رك كوم كو بات بي منو توج سو با لول دو نيك مسنى و دنج كو ييغي سي مسنى واخ غين واخ ني مسنى فوغو من تي توفال لو ملني موم دا فاي ген لو ملني القمران ني خا دا فا نيو من باب التغليب مانام ne ñaari weer yi fekk lañ ci namu mooy alqamaru wa shamsu dañ koy wax alqamaraani fekk alqam al al am tudda ci al al lañ ci namu dégg nga eh, su boobaa saar yu mel noonu <coughs> yooyu dañ leen tuddee mul xaq bil musanna lu ñu yégee ci musanna waaye du musanna ndax am ndem am nañ alif ak nun gën ci yokk su boobaa dañ leen yégee ci musanna di leen i'raab comme ni ñuy i'raabee musanna waaye duñ musanna parce que mënoo ci at fulu mel ni moom boo si doon atfu lu wutee moom nga ci atfu bu alqamaraani mën nga koo teqale waaye boo ko teqale naan qamarun wa shamsun qamarun wa shamsun waxoo zaydun wa zaydun qamarun wa shamsun kon su boobaa loolu du musanna jàppal takk-takk boobu foo gisati musanna nga mën koo xam baat la buy tegtale ñaar ñu yokk ci mujj ga mu mën a raflewu maanaam nga mën a tudd mufrad mi waaye nga mën cee tofal lu mel ni baat boobu dégg دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعد في مثله عليه دينغ لول موي إيه، مسنى مسنى غوغنك مملا واحنا دينكو إعرابي ألف كي جاء ديكنا الرجلان نياري غورني قال واحنا الرجلاني نياري غورني الرجلاني فاعل مرفون بالألف لأنه مسنى والنون awaddun an tanwini fi mufradihi nun gi dafa remplace tanwin bi ci mufrad ma parce que mufrad mi rajulun nga waxoon foofu tudd nga fa nuun dina bindoo ko fa nun googu nga tuddoon nag ba nga ko defee euh, musanna muy ñaar euh, danga koy indiwaale muy jaa arrajulaani dégg nga kon musanna alif lay rafaaye wa kilaa kilaa kilaa boo xoolee firim musanna jaaduwut ca duñ ko tuddee musanna waaye dañ koy héegee ci musanna moom kilaa dégg nga ndax même moom du mënu mënu ko dagg kilaa kilaa rek la mënu raflewu te musanna dafay mën a raflewu kon lañ waxoon ci musanna boo xoolee ci kilaa doo ko fa fekk waaye dañ koy yéegee ci musanna te moom alifam gi du lal cosaan la ci moom kilaa alif gi cosaan la kon dañ ko yéegee ci musanna waaye si ban charte ki wa kilaa kilaa danañ koy yéegee ci musanna isaawu si laa nem jokkale nañ ko mudaafan mbir mi luñ laafal bi mudmarin ci damir dégg nga kilaa su fekkee damir daf cee jokk nekk mu mu laaf damir googu su boobaa dañ ko inraab inraabu musanna kon kilaa xaddul musanna firim musanna du ci dëggu kilaa dafa mel ni alifam googu dafay ñuru ndollal waaye du ndollal ndax alifam googu moom kilaa cosaan la dégg nga ci cosaanu baat bi la bokk kon kooku mul xaq bil musanna lañ koy tuddee waaye duñ ko tuddee musanna dégg nga balaañ koo yéegee ci musanna nag faw mu laaf damir ni ki jaa dikk na kilaahuma ñoom ñaar ñëpp wala boog kilaa boobu dag naan failun marfon bil alif li annahu mulhaqun bil musanna dañ ko yéege ci musanna dégg nga damir boobu day nekk mu daafu ilay ha damiru muttasil moom ne la damm fi mahalli jarri mu daafu ilay dégg nga Eh, mim gi li lil ixtimaad la pour sukkandiku ci rek ba mën a tudd damir bi damiru isnayni bi alif googu eh, li daallu na al isnayni dafay tegtale ñaar waraaytu gis naa kil tay hima ngay wax wala kilay hima wa maratu romb naa bi kilay hima ni ngay wax jaa kilahuma wala kiltahuma raaytu kilay hima wala kiltay hima wa marartu bi kilayhima wala bi kiltayhima benn rek kilaa ak kiltaa mooy tekki ñaar ñu jigéen kila mooy ñaar ñu góor moo tax dégg nga moo tax mu ne kiltaa kiltaa kazaaka comme noonu la comme kilaa ñoo bokk ñoom ñëpp marartu bi kilayhima wala bi kiltayhima baa ngi xarfu jar ismu majrurun bil baa wala mutajari alyaa li annahu mulxaqun bil musanna bi kiltayhima noonu رأيت كليهما كلي منصوب ب دنگا مفعول ب منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى كلتيهما تمن الله دنگا دمير بوبنا دفنك في محل جر مدافع إليه دمير بجي جوكنون دنگا أما سفك كلا ولا كلتا دنيو لاف اسم بوفين مانام لاني لاف دو دمير su boobaa boo leen rafaa ak boo leen nasbee boo leen jaree da nga fay bàyyi alif ga nattale rafaa ak nasb ak jar ga ci alif gi ni ki jaa jaa dikk na kila rajulayni kila faa'il marfuun bil alif al muqaddara alal maa ngi wax bil alif bi dammati al muqaddara alal alif wa mudaafun rajulayni mudaaf ilayhi dégg nga majruurun bil yaa li annahu musanna وكلتا المرأتين جاء كلتا المرأتين رأيت كلا الرجلين كلا مفعول بمنصوب بالفتحة المقدرة على الألف ولنغني رأيت كلتا المرأتين كلا الرجلين كلتا المرأتين يوبكني إعرابي رجلين مرأتين مضاف إليه ومررت رمنا بكلا الرجلين ورب كلتا المرأتين بار فجر كلا اسم مجرور بالباء ولا متجري alkasra muqaddara al alif kon su fekkee dañoo laaf moom kilaa kilta isim bu feeñ su boobaa danga leeni num tuddati danga leeni mm, danga leeni arab ci fatha wala damm wala kasra guñ nattali ci alif ga waaye duñ changé amma buñ laafee damir nag ci lañ leen irab irabu jamu ñu nekk kilaa wala kilay ولا تي حالتو جمون رفا كلا لا جمون نسب اجر كلي ولا كلتا جمون رفا كلتي جمون نسب اجر جاينو لول لاي وكلا كلا اذا وصلا لم جوكل نانكو بمدمر مدافا بمدمر لافل بمدمر تي دمير بونكو لا افاي دمير سو با اعراب اعراب مثنى kilta kilta kazaka naka noonu la waaye nag ñoom boo xoolee duñ musanna mais dañ leen dañ leen dañ leen yéegee ci musanna isnaani ñaar wesnataani ak ñaar ñu jigéen kibnayni yajriyaani danañ daw ñoom ñaar ñooñu ke ibnayni comme ibnayni yu firi ñaari doom yu góor wabnatayni ak ñaari doom yu jigéen ibnaani ak ibnataani ibnay nekk ibnaan yi yëpp musanna la parce que waxoon naa dañ ci yokk alif ak nun wala yaa ak nun moom musanna ibnay ni ibnatay ni ñooñu ay musanna dëgg-dëgg rek parce que mboolem la ñu waxoon ci musanna rek da nga fa gis baat la buy tegtale ñaar eh, ñu yokk ci ga alif mu mën a raflew mën ngaa wax ibnun ibnatun ibnatun wala bintun bintun nga mën cee atfu lu mel ni moom hmm. kon ibna yi ibna yi ibnaani ak ibnataani ay musanna lañ waaye isnaani ak isnataani ñoom duñ musanna ndax boo xoolee mënoo leen sax teqale mun a wax isnun wa isnun te loolu kenn du ko wax kon isnaani ak isnataani dañ leen yéegee ci musanna moo tax ñoom dañ leen i'raab i'raabu musanna ñi ngay i'raabee musanna rek noonu ngay i'raabee lañ yéegee ci musanna bokk na ci dégg nga isnaani isnataani kooku moom dañoo alif ak nun ca mujj ga moo tax su boobaa dañ koy inraab comme inraabu musanna dégg nga ñuy euh, rafaaye alif di nasabee yaa di yaa ñoom isnaani isnataani dégg nga waaye tu ni ngay wax muy mafoon bi mansuubun bi yaa li annahu musanna moo tax mu ne kaza ka noonu kilta kilta kaza ka noonu isnaani ñaar wasnateen ak ñaari jigéen yu jiriyaani dañuy daw ci wàllu arab këb nay ni ñaari doom yu góor wabnateen ak ñaari doom yu jigéen wax naa la ibnayn ak ibnateen ñooñu musanna dëgg lañ wa taxlufu dana huutu alyaaya fi jamia ci mboolem musanna ak lañuy ñuy ci musanna yaa dana fu wuutu al alif alif jarran ngir jar wa nasban ak nasab baada fathin gannaaw fatha goo xam ne xat ulifa miin nañ ko lu mu bëgg wax foofu mooy musanna buy rafaa dafay rafaaye alif dégg nga waaye nag eh, lu ñu yéegee ci musanna it buy buy rafaa dafay rafaaye alif waaye boo jaree musanna wala lañ fa yéegee wala nga nasab musanna wala lañ fa yéegee su booba yaa mooy wutu alif maanaam yaa lay jaree yaa lay nasabe musanna ak lu ñu yéegee ci musanna yaa la ñuy jëree yaa la ñuy nasabe li njëkk dégg nga yaa goog nag dafay fataa ni ki raaytu raaytu rajulayni gis nga laam gi njëkk yaa gi dafa fataa maratu bi uh, kilayhima gis nga laam gi njëkk yaa gi kon li njëkk yaa gi dafa fataa moom lay wax ne baada fatin gannaaw fataa boo xam ne xat uli fa miin nañ ko kon musanna li njëkk yaa gi dafay fata dégg musanna ak lu ñu yéegee ci musanna man ngaa jàpp ne dañ leen rafaaye alif di leen nasabee yaa di leen jëree yaa loolu mooy li siiw ci luxatul arabia dégg nga waaye li gën a wér mooy musanna ak lañ yéegee ci musanna ci maska lañ leen i arabe maanaam jaa rajulaani rajulaani faa'ilun marfuun bi dammatin muqaddara alif damm guñ nattale ci alif gëla raaytu rajulayni mafuun bi mansuubun bil fataatil muqaddara al yaayi fataa lañ ko lañ ko inraabee waaye lañ ko maanaam gaay nasabam fataa la ko nattale ci yaaga dégg marartu bi rajulayni moom it rajulayni googu majruurun bil baa walaa mutajarri al kasratu muqaddar ala yaay looloo gën a kon li gën a wér mooy ci ay masque lañ leen arabe waaye masque ba dañ koo nattale ci alif gi ci jamono rafa nattale ko ci yaa gi ci jamono nasab wala jamono jar loolu mooy li gën a wér waaye li taarifkat bi tudd ne dañuy rafaay alif di nasabee di jëree yaa loolu mooy li gën a siiw ci langu arab am na sax ci arab yi muy luxatu kinaana ak banu xaris dégg ak banu anbar ak banu bakr bun waayil ak ñeneen ci arab yi ñoom <clears throat> mm, dañuy dañuy inrabe musanna ci alif mutlaqan ñoom toujours ci alif lañuy inrabe musanna mutlaqan ci rafa ak nasab ak jar jaa zaydaani kilahuma wa raaytu zaydaani kilahuma wa marartu bi zaydaani kilahuma kon ñoom musanna ak lu ñu yéegee ci musanna ñoom alif rek lañ koy bàyyi noonu dégg nga zeydaani faayilun marfuun dégg nga su boobaa bi dammatil muqaddara al alif wa raaytu zeydaani tamit bil fataatil muqaddara al alif marartu bi zeydaani bil kasratil muqaddara al alif kon ñoom musanna ak mulxaq bil musanna dañ koy kii ci alif dégg nga ñoom noonu la ñuy def inna hadaani la saaxiraani foofu lay dugg dégg nga inna ak an nag yooyu dañuy na sabli sim dafa xabar inna allaha xafurun kon inna haadayni la waroon doon ñoom ci woo ko noonu ñoom seen seen seen luxa la alquran dafay ñëw ci luxatul arabia laa witraani fi leyli tamit noonu la mu def laa witraani fi leyli nasabut ko te laagi gi eh, laa naafiya jins la <coughs> dégg nga hmm, loolu foofu lañ ko yéegee dégg warfa na rafa bi waawin ci waaw wajrur na nga jar biyaa ci wansip wansib na nga nasab saalimi jamcin dégg nga jamu góor bu mucc aamirin tamoo mu mel ni aamir wu musnibi ak musnibi nee na na nga rafaaye waaw na nga yaa na nga nasabee yaa jamu muzakkar saalim bu mel ni amir wala mu mel ni musnib génn na ci musanna mu ngi ñëw ci yeneen yi nga xam ne ci ay xaraf lañ leen inrabe moo di mu jamu muzakkar saalim jàng na asmaaw sitta jàng musanna ñu ngi ci jamu muzakkar saalim si ñuy arabe ci xaraf jama muzakkar saalim ak lañ xéegee si jama muzakkar saalim comme niñ waxewoon ci musanna rek ak lañ xéegee ci musanna jama muzakkar saalim bu ñu waxee mooy lan xamal ne lépp loo xam ni firim jama muzakkar saalim dëgguwut ci rek dañ ko yéegee si jama muzakkar saalim jama muzakkar saalim ak lañ ci yéegee dañ leen i waaw di leen nasabee yaa di leen jaree yaa mu junj nag ci xamle lan mooy jëmu muzakkir saalim mooy mooy lu mel ni amir wala lu mel ni muznib dégg nga kon jëmu muzakkir saalim ñaari xaaj doon benn mu nekk alam maanaam mu nekk jaamit jaamit mooy loo xam ne xottewuñ ko fenn wuñ ko ci benn baat noonu rek la mel comme amir tur la waaye waaye tur la boo xam ne alam la noonu xottewuñ ko fenn amir amir rek la wala mu nekk sifa comme muznib ñu ngi ko xottee ci aznaba bakkaar la yuznibu fa huwa muznibun kooku sifa la kon jëma muzakkar saalim jaamit lay doon tur bu way wala sifa bu dee jaamit dañ ci sartaal juróomi sart mooy jaamit boobu tur bu way woowu nga xam ne xottewuñ ko fenn na nekk alam maanaam na nekk turu lenn lu jagoo na jagoo dara comme Muhammad dafa jagoo benn dëkk benn tur benn jëmm Ibrahim dafa jagoo benn jëmm senegal dafa jagoo benn barab hmm? loolu mooy alam nga xam ni ab barab moo ko jegoo wala boog ab sax bàyyi ma moo ko jagoo wala ab doomu aadama moo ko jagoo turu nga xam ne xam ko jagoo di alam kon jaamit pour mu nekk mu muzakkar saalim pour nga mën ko def jamo muzakkar saalim foofu mu nekk alam turu wu jegoo ci lenn foo mu nekk alam buy tekki mbooloo mu góor bu dee alam la waaye alamu jigéen la maa ngi wax mbooloo mu góor foo mu nekk alam buy tekki góor bu dee alamu jigéen la kenn du ko def jama mu zakkar salim mu nekk alam buy tekki lu am xel bu dee lu amul xel la ni dëkk wala bàyyi ma kenn du ko def jama mu zakkar salim foo mu nekk alam boo xam ni du am taa taaw tanis taa goo xam ne dafa ñëw pour jigéenal baat bi ni ki xatu su amee taaw tanis kenn du ko def jama mu zakkar salim foo mu mucc ci tarkiib maanaam ñaari baat yu ñu toggale comme si bu wéy baax la bakk yooyu kenn du leen def jama muzakkar salim kon mu muzakkar salim bu dee alam la da nga bu dee jaamit la fin bu way foo nga sart sart juróomi sart yi mooy na nekk alam alam boo xam ne muzakkar la alam buy tekki ko am xel alam boo xam ne fi mucc si taaw taaw jigéen taaguy tekki jigéen ak alam goo xam ne fi mucc si tarkib kon dafay nekk alam li muzakkirin aqilin xaaliyan min taayi tanis wa min at tarkib su nekkul alam kenn du ko def jamo muzakka salim jamo muzakka salim mu nga yokk si waaw nun wala yaa nun ci mujj rajulun jamid la xottewuñ ko fenn tur la woo xam ne xottewuñ ko si fenn waaye kenn du wax rajuluna lu mooy ñu def ko tasxir boo ko defee tasxir kooku melo la man ne rujaylun man ngaa wax rujaylun ndax day mujj nekk melo kon yooyu boo defee tasxir melo lay doon moo nga mën ko def jamo salim waaye boo ne rajulun kenn du ko mën a def salim bu fekkee alam la te nekkul alamu muzakkar kenn du ko dajoo muzakkar saalim ba tey niki zeynabu kooku jamit la wuñ ko fen alam la waaye nag alamu jigéen la moo tax kenn du wax zeynabun kooku zeynabaat la ñu wax danañ ci ñëw bu fekkee alam la mu muzakkar la waaye alamu ko amul xel la loo amul xel niki laaxiqin turu fas la xam nga fas amul xel kenn du wax laaxiquuna déedéet bu fekkee it eh, dafa am taa guy tekki jigéen alam la mu muzakkar la am na xel waaye dafa am taa guy tekki jigéen kenn du ko inraab inraabu jëma muzakkar saalim men maanaam kenn du ko def jëma muzakkar saalim ni ki talxatu kooku alam la xottewuñ ko fenn jaamid la waaye alam la muzakkar la am na xel mais dafa am taa ci ji ci mujj ga baat bi di le ku ko tudd moom du jigéen su boobaa du ñu wax talxuuna déedéet amaa kuufiyoone yi daganal nañ loolu kuufiyoone yi daganal nañ dégg nga jëm ñu loo xam ne dafa am taa ci mujj ga ñu def ko jëm muzakkar saalim ni ki talxatu wa hamzatu ñu wax jaa at talxuuna mm, ak hamzuna ñoom daganal nañ loolu ñoom kuufiyoone yi dégg nga bu fekkee dafa nekk mu rakkab Eh, baat bi dafa toog ñaari baat yu ñu dugalante la ni ki siiba way yi kenn du wax siiba eh, way huun jaa siiba woy huun ak kenn du ko def parce que ñaari baat yu dugalante la teew nag am ñenn ci nuxaat yi eh, ñu ne ñu def tarki bu mas ji mooy jël ñaari baat jaxase mu far nekk benn baat nee na dañ ko def mm, jamu muzakkar saalim waaye wutee nañ ci nan lañ ko defee jamu muzakkar saalim ñi ne xaaj bu njëkk ba rek ngay def jama muzakkar muzakkar ni ki jaa sii ba wayhi xam nga sii mooy xaaj bu njëkk bu wayhi kon yow sii buun ngay wax jaa sii buun sii ñeneen ñu ne yëpp la def jama muzakkar saa jaa sii ba way huun <laughs> lu waaye li ëpp mooy loolu wérut duñ ko def jama muzakkar saalim jama muzakkar saalim nag eh, benn alam lay doon bu nekk alam lay doon su nekkee alam dégg melo yii ma la wax faw mu faw mu ñëw ci moom jëm muzakkar saalim melo yi ma wax ni faw mu faw mu lajees ci pour ñu mën ko inrab inrabu jëm muzakkar saalim dégg euh, bu dee sifa it moom jëm muzakkar saalim comme muznib nim la nim la ko misaalee bu dee sifa melo la luñ xottee ci baat la ci fenlu ni ki aznaba muznibun muznibun mën nañ ko def jëm muzakkar saalim bépp sifa boo gis mën nga def jëmm muzakkar saalim si kaw juróom-ñaari sàrt yi la gis mooy na nekk sifa melo boo xam ni dafay tekki góor góor gu am xel bu mu am taag jigéen kon ñeenti sàrt yi ñu waxoon si jaam it daf fi ñëw waaye nag ba mu des alam alam ñëwut fa dégg nga euh, du fa ñëw moom kon na nekk sifa melo. نانيكو مذكر ملو كي نام خل نموتي تاك جيجن واو نيت ساتو يوغون تي عالم موف نيك بوم نيك تي بونت افعل فعلا نيك احمر حمراء بوم نيك سي بونت فعلان فعلا نيك عطشان عطشا بوم نيك لو خامني تور و خامني غور اك جيجن ملو و خامني غور اك جيجن نيو يم كوم ملو نتك فاعول ولا فاعلون rajulun saburun imraatun saburun lañuy wax nga waxuñ foofu saburatun rajulun jarixun buñ jam imraatun jarixun lañuy wax kon su nekkee eh, loo xam ne ni mel woo xam ne góor ak jigéen moo ci ñoo ci yem duñ ko inraab jama mu zakkar saalim maanaam duñ ko maa def jama mu zakkar saalim moom moom sifa kon juróom-ñaari sart yi la gis nekk sifa buy tekki mbooloo mu góor si fa ko am xel mucc si taag jigéenal bu mu ci si buntu afaala faalaa bu mu bokk si buntu faalaa na faalaa bu mu nekk loo xam ne melowoo góor ak jigéen ñoo si bu dee melo la waaye melo jigéen la kenn du ko def jama muzakkar saalim ni ko xaaidun aji mbër kenn du xaaidun loolu kenn du ko def bu fekkee melo la waaye melo wuy tekki góor la waaye góor gu amul xel ni ki saabiqun di firi fas wu jiitu kenn du wax saabi saabiquun ndax loolu li muy tekki amul xel bu dee melo la wuy tekk góor gu am xel waaye dafa am taa jigéen ci mujj ga kenn du ko def jom muzakkar saalim ni ki allaamatun borom xam-xam kooku melo la mais kenn du allaamuun ndax dafa am taa ci mujj ga bu dee melo la woo xam na ni góor lay tekk am na xel amul taal ci mujj ga waaye ci buntu afala faala la maanaam yi nga xam ne dañ leen tëgg afala góor gi jigéen gi faala ni ki ahmar ku xonq melo yooyu jigéen ji xamra lañuy wax su boobaa loolu kenn du ko def jëmu muzakkar saalim mu ne wa ahmaru nañu xonq déedéet xumrun mooy seen jëmu dinañ ci yow li nga xam ne ni buntu faalaana faala dégg nga yooyu it melo la góor lay teg am na xel amul taa ak jigéen bokkul ci buntu afala faala mais duñ ko def jamo muzakkar salim ni ki sakraana sakra sukaara mooy jëmu foofu léegi mu nekk fiaalun comme taachun mar dégg kenn du ko def jamo muzakkar salim waaye jamo buntam dina ñëw kenn du wax sakra nuun déedéet kenn du wax sakra nuun dégg nga naka noonu su fekkee sart yëpp daje nañ ci waaye melawoo góor ak jigéen ñoo ko bokk ni ki sabuurun dañuy wax rajulun sabuurun imraatun sabuurun rajulun jarixun imraatun jarixun liñ tëggu faulun wala failun kenn du wax sabuuruna wala jarixuna ndax loolu mel woo xam ne góor ak jigéen ñoo si bokk sart yi bu dajee daal am ngeen ne eh, nga am jaamit lu way loo xam ni sart yi ma waxoon daje na ci wala nga am sifa boo xam ne sart yi ma waxoon daje nañ ci su boobaa mën nga ko inraab inraabu jëmu muzakkar saalim wax gi mu wax nag amir mooy tekki jaamit bi nga xam ne sart yi ci wax daje nañ ci wax gi mu wax muznib mooy tekki sifa bi nga xam ne sart yi ñu ci kon jëmu muzakkar saalim na nga waxoon ci musanna rek nga ci wax mooy luy tegtale lu ëpp ñaar moom foo mu tegtale lu ëpp. ñaar dégg nga baat la buy tegtale lu ëpp ñaar ñu yokk ci mujj ga waaw ak noonu wala yaa ak noonu mu mën a rafale wu moom it ma mën a nekk mën a mën a mën a xaaj moom jëmm muzakkar saarim dégg nga nga mën cee tofal lu mel ni moom comme nuñ ko waxoon ci musanna bu loolu amul daal nga gis lu ñuy inrabe eh, jëmm muzakkar saalim te sart yi mu wax dajewuñ ci su boobaa da ngay xam ne dañ koy yéegee ci jamono musakkar saalim moom lay wax ne wa shibi zeyni ak yu niroog ñaar yii xam nga amir ak muslim moom sarta jamono musakkar saalim nekk na ci amiruna baat la buy tegtalil ëpp ñaar hmm? eh, mën nga koo dagg wax amirun wa amirun wa amirun yokk nañ ci mujj ga waaw ak noonu nga mën nga ci am fu lu mel ni moom it amirun wa amirun wa waaye am na yoo xam ne muslibu nit noonu am na yoo xam ne dañ leen a niru nag dañ leen a mais charte yi ñu waxoon ci musanna musanna dajewut ci te ñu ngi leen li ñu waxoon ci jëmu muzakkar salim dajewuñ ci te ñu ngi leen i'raab i'raab jëmu muzakkar salim su boobaa yooyu dañ naan mulxaq bi jëmu muzakkar salim dañ ko yéegee si jëmu muzakkar salim moom mu lay wax ne ak yu niroog ñaari yi niroog amir muy alam di jaamit ak yu niroog muznib muy sifa dégg nga wa bihi woolu xiqa yéegée nañ bii ci loolu ishruuna ñaar fukk wa baabuhu ak buntam muy salaasuun xamsuun sittuun ba yooyu dañ koy yéegee ci mu jëmu muzakkar saalim waaye nekku jëmu muzakkar saalim dégg nga wal ahluuna ak ahluuna ahluuna yi dañ ko yéegee ci mu muzakkar saalim waaye bokkut ci dégg nga maanaam lim mu bëgg wax foofu mooy lépp loo xam ne niroog nag amir walla mu niroog muznib loolu jama muzakkar saalim la lépp loo xam ni nag niroowut ak amir lañ waxoon ci amir dajeewut ca lañ waxoon ci muznib dajeewut ca ñu yokk ci waaw nun ci mujj ga dañ koo yéegee ci jama muzakkar saalim wa si zeyni ak niroog ñaari mooy yu niroog amir nga xam ne chartaay jama muzakkar salim daje na ci nekk muhammad ma nga wax muhammadun ibrahima ibrahimun parce que sart yëpp daje nañ ci li niroog muznib mooy li nga xam ne charte yi ñu waxoon ci sifa melo daje na ci ni ki al afdal ki gën al afdaluuna mën naa nekk daraab dóoraakoon daraabuun mën naa nekk parce que sart yi ñu waxoon ci sifa yëpp daje na ci tey muhammad alam la muzakkar la am na xel amul taaw jigéenal taa gu koy jigéenal du mu rakkab kon kay muhammaduna mën naa nekk al afdal wala ad darraab dooraa koon wala ki gën kooku melo la boo xam ni mu muzakkar la ko am xel la amul taaw jigéenal bokkul ci buntu afan la fan la bokkul ci buntu fan la na fan la góor ak jigéen yemawuñ ci su boobaa mën ngaa wax al afdal kon yooyu daf lay dimbale ba yow boo gisee baat rek da xam ndax war nga koo def ñoom a koo def la mu wax nag ne waa ulxiqa yéegee yéegee nañ bii ci moom ashruna ñaar fukk daf la a jàngal yi nga xam dañ leen yéegee ci moom muzakkar saalim te charte yi dajeewuñ ci ñu leen i'raabe waaw ci rafa di leen i'raabe yaa ci jar wala ci nasab yooyu charte yi dajeewuñ ci bokk na ci ashruna ñaar fukk ci moom muzakkar saalim mooy loo xam ngaa tudd mufrad ma charte ñu waxoon dajee ci loo xam ne mënoo tudd mufrad ma waaye wala boog mën ngaa tudd mufrad ma waaye sart yi ñu waxoon dajee wuñ ci kooku di jëmm muzakkar saalim dañ koy yéegee jëmm muzakkar saalim inshuruna salaasuun xamsuuna ba tisuuna yooyu dañ doon yéegee ci jëmm muzakkar saalim ndax ñoom mënoo tudd seen mufrad inshuruna inshuruna rek la amul mufrad salaasuuna amul mufrad kenn du wax inshurun fukk ak fukk déedéet inshuruna inshuruna rek la salaasuuna salaasuuna rek la moo tax mu ne wala xëyee génnañ bii ci jamu zakk saayam insuruna insuruna gi firi ñaar fukk ndax mënoo tudd seen mufrat wa baabu ak buntam te mooy salaasuuna xamsuuna sittuuna ba mu jeex loolu yéegee nañ ko ci musana wala ahluuna ahluuna gi firi ñooñ ahluuna dañ ko yéegee ci jamu muzakka saayam ndax lan dëgg la mën ngaa tudd mufrat mi wax ahlun waaye sart yi ñu jàngoon dajeewu ci ndax moom turu xeet la ahlu moom ñëpp ci dugg du kenn ko jegoo du turu kenn te jaamit dañ laa waxoon ne foo mu nekk turu kenn kon ahlu moog rajulun ñoo yem turu mboolool turu xeet la buñ ne rajulun góor ñëpp ciy dugg ahlun njaboot gi yëpp ciy dugg soo waa buñ ko defee na nag da ngay xam ne du muzakkar saalim waaye dañ ko yéegee ci jëm muzakkar saalim ndax sart yi dajee wuñ ci dina mën nga tudd mufrad dégg nga kon ahlu noonu la moom lay wax ne ulu ak ulu ulu it noonu la mel ndax ulu gi firi ñooñ nangam kooku mënoo tudd mufrad ma ulu ulu rek la ulul albaab hmm? mënoo tudd mufrad ma kon buñ koy inraab inraabu jëmm muzakkar saalim eh, haawlaay ulul albaab marartu bi ulil albaab su boobaa da xam dañ ko yéegee ci jëmm muzakkar saalim waaye nekkul jëmm muzakkar saalim moom ulu ndax lan ndax mënoo tudd mufrad ma dégg nga aalamuuna ak aalamuuna gi firi wa ak aalamuuna jamoo aalam bi firi mindeef aalam mooy lu dul yàlla mindeef xam nga alam man nga aalam mu ne mën ngaa tudd mu waaye aalam ñëpp ci dugg turu xeet la comme rajulun te jaamit dañ la waxoon ne alam lay doon turu kenn te aalam turu mbooloo mi yëpp la mindeef yëpp dugg nañ ci biir kon soo ko defee jama muzakkar saalim da ngay xam ne dañ ko yéegee si jama muzakkar saalim waaye charte ñu waxoon ci gannaaw euh, dajee wut ci dégg nga wa illiyuuna ak illiyuuna illiyuuna it illiyuuna it noonu la ndax moom mooy tekki la gën a kawe ci aljana sart yi dajewuñ ci pourtant benn barab lay tekki mooy illiyuuna dégg nga waaye amul xel li am xel mooy mu muzakkar saalim maanaam nit waaye a barab la kon kenn du ko def jëmu muzakkar saalim parce que jëmu muzakkar saalim dañoo waxoon ne sart yi foo mu nekk lu am xel moom jaamit dégg nga te illiyuuna turu barab la moo tax kenn du ko def jëm muzakkar salim wa araduuna ak araduuna dégg nga shazza jadd na wa sinuuna ak sinuuna na jamu ard arduuna jamu ard dégg nga kenn du ko def jëm muzakkar salim ndax lan ndax turu xeet la ardu moom boo ko waxee mboolem suuf yi dugg nañ ci biir kon kenn buñ ko eh, eh, defee jëm muzakkar salim dañ koy yéegee si jama musakkasaan waaye moom si boppam du jama musakkasaan léeg-léeg ko nag waaye charte yi dajeewuñ ci dañ ko ci yéegee moo tax mu dafa jàdd xiyaas ñoom ñi ñëpp dañoo jàdd xiyaas parce que duñ jama musakkasaan dañoo gis arab yi waxee ko noonu rek ñu waxee ko noonu kon yii arab yi dañ leen def jama musakkasaan mais charte yi dajeewuñ ci moo tax dëgg-dëgg duñ jama musakkasaan moo tax mu ne wa arduna ak arduna ji jamu ard jamu gi ard mooy benn mooy suuf suuf moom lépp dugg na ci kooku dafa jàdd xiyaas ndax moom Euh, turu turu xeet la te it mu annas la dañ koo jigéenal te jama muzakkar saalim waru nekk mu annas mm, luñ jigéenal te dañ koo jigéenal wa sinuuna ak sinuuna yi fii ay at wa baabuhu ak buntam ba yooyu tamit dañ leen buñ leen defee jama muzakkar saalim xamal ne dañoo jàdd qiyaas xam nga sinuuna jamu sanatun gii firi at sanatun turu jigéen la te turu xeet la dégg nga walam eh? at mi yëpp ci la dugg te turu jigéen la yow ma zakk saalim waruloo nekk turu jigéen warul nekk turu woo xam ne dafa matale kon dañ ko yégee jëm mu sakk saalim wa baabu ak buntam nag mu ngi junj bépp sulaasi boo xam ne dañoo xasaf mu jëg baat ga changé ko taa xaag jigéenal mooy taa googu taaw marbuutu googu loolu mooy buntab sinuna xam nga sinuna dañoo wutee ci jamoo bi ci mufrad mi cosaan li sanawun la waroon a doon sanawun wala sanahun moo tax na ñu koy defee jamu sanahaat pour wane ne cosaan li sanahun la am ñu koy defee jamu sanawaat pour wane ne cosaan li sanawun la waroon a doon sanawun waat boo jàppee sanahun nga ne sanahaat parce que ci jamu da ngay indi lañ ci dagoon léegi bu dee sana la woon dañoo dagg waaw ga remplacé ko taaguñ jigéen muy sana bu dee sana la woon ñu ngi dagg nañ xaaga remplacé ko taaguñ jigéen muy sana kon bépp baat boo xam ne ñetti xaraf la ñu dagg muj ga remplacé ko taag jigéen te defuñ ko jamu taksiir suñ ko defee jamu euh, zakkar saalim su boobaa da ngay xam ne dañ ko yéegee ci jama muzakkar saalim dégg nga waaye moom sax euh, euh, euh, li gën a li gën a bëri dañ koy def jama muzakkar saalim mooy yu mel nii comme mi atun gi firi téeméer dégg nga moog sanatun ñoo bokk même lu ma ci wax laa ci wax mën ngaa wax dégg nga mi na ay téeméer bu dee ci nasab gi la dégg nga euh, moom loolu mën nañ ko ne parce que defuñ ko jëmo jëmo jëmo taksir ama gii gi firi tuñ kenn du ko def jëmo jëmo muzakkar saalim parce que dañ ko def jëmo taksir shifaahun ay tuñ dégg nga noonu la zubatun mën nañ ko def zubaatun léegi-léegi euh, ñu def ko zubuuna kon moom def nañ ko jëmu taksir ba waaye dafa jàdd xiyaas moo tax ñuy def zubuuna waaye li ëpp mooy zubatun euh, comme que def nañ ko jëmu taksir muy zubaatun waruñ ko woon def jëmu muzakkar saalim mais gis nañ arab yi di ko def jëmu muzakkar saalim di wax zubuuna wala zubiina dégg nga mu ne wa mislu xiinin wa mislu xiinin lu mel ni xiin xad yarit dana roddal baabu bi bunt maanaam bunt bi dana ñëw ñu koy inraab ci ay xaraf comme nañu inraabee xiin waxuwa loolu yettaridu dana xiyaasu inda qawmin fa nit mune ne sanatun ak miatun dégg nga xam nga mi aw na mi mi una wala mi ina waaye sanatun miatun ak zubatun ak yu demee noonu nee na léeg-léeg ñu ñëw mel ni xiin ni ñuy inrabe xiin ñu inrabe ko noonu maanaam di leen inrabe ci ay xaraf maska ca mujj ga di wax haadihi sinuuna raaytu siniina marartu si siniini loolu lañ la ñu def ko dégg nga raaytu siniinun raaytu haadihi siniinun raaytu siniinan marartu bi siniinin wala haadihi siniinu raaytu siniina marartu si siniini dégg nga waaye li ëpp nag mooy nga tanwin ko moom moo gën bu la neexee nag nga xasaf tanwin bi waaye li ëpp dañ koy tanwin am nañu ne loolu lu xiyaasu la am na ñu ne loolu xiyaasu hut dégg nga maanaam euh, baat boo gis rek mu nekk sulaasi boo xam ne dagg nañ mujj ga changé ko taawu tanis man nga ko inrabe ci ay xaraf comme nii am ñu ne déedéet boo gisee arab di ko waxee noonu rek nga waxee ko noonu buñ ko waxewu noonu doo ko defee noonu dégg nga ni ko yonantul woon allahuma ijaan alayhim sininan ka sinini yusufa yàlla yàlla nga leen defal ati beekoor كم أتبيك يوسف ولين تهنك ويكتبوا أن دعاني من نجم فإن السنين هو لعبنا بنا شيبا وشيبنا مرضى دعاني من مجد بايل دم فاتلك نجد فإن السنين هناك أتبيك ورمي لعبنا فهينا بنا شيبا بن بجاو وشيبنا بجاو لوننا مرضى تاي دولين فوفو كيس نمو سنين وخد سنين sini denga nga dégg nga sininuhu denga nga sinina waaw waxul sini nuun waxul sinuuna wala sinina waaye waaye sinina gire de doo xam jamo mu jamo la def wala <coughs> wala daf ko mas ci kii ndaxit sinun danga nan sinuna sinina waaye fii li ëpp daal gars yi ñu da ko irab ci xaraf wax siin siniina comme ni ma xaati siniinun raaytu siniinan marartu bi siniina nee na loolu lañ ko irabe mais inna moom dafay nasab lisim rafa xabar dégg nga te boo ko defoon sinuuna it fa inna siniina la ñuy wax na koy at allahu alam loolu moo di dars bi nga xam ni moom lañ jàng tey loolu lay wax ne waxu waloolu en la qawmin fa aw nit yettaridu dana xiyaasu xiyaasu boobu na wutee ci ndax lu mel ni sinuuna ak buntam dañ leen inrabe ci ay xaraf comme xiina lu xiyaasu la wala nañ ci waaye li gën a wér mooy xiyaasuhut lañ ci dégg rek lañ koy defee noonu <coughs> waaye buñ ci def ñoom mu saalim it dangay xam ne du ci saan waaye dañ ko ci yéege مني بالالف بار فجر الالف اسم مجرور بالباء ولا متجر الكسر الظاهر على اخره والجار والمجرور متعلق بارفع ارفع فعل امر الممنون آه، على السكون دينا وفاعل دمير مستتر وجوبا تقدير انت المثنى مفعول بمنصوب بالالف المقدره آه، بالفتحة المقدرة على الألف وعرف عطف كلا معطوف على المثنى والمعطوف على المج... على المنصوب منصوب ولا متنس بالفتاة المقدرة الألف إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه إذا فوق فكرك آه، آه، ظرف لبو خمي دفع يري معنى شرط وأنك لم دقو لولو دفع في محل جر مضاف دل لا فعلا وأي لغا خمني ما جوابم مو كاين نصب نيارل ظرف دفع مو نصب نيكي مكستو سخنا shahran weer weer woowu makastug moo ko nasab dégg nga isa zarfun dégg nga mu dammanul maana chart xaafilun li eh, dégg nga chartihi mansubun bi jawaabihi loolu moo di inrab baar fujar mudmar ismu majrurun bil baayi wala murtari al kasr al zahir al axiri al jaaru majrur mutaalliqun bi wusila googu nga nekk nga gis ci mujj ak bayti ba mudaafan xaalun mansubun wala mutnasib al fata al zahir al axiri صاحب الحال موي دمي غي خامني مو نبو سي موسيلا غوغو فعل فعل ماضي مبني للمجهول دنگم ونائب فاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو والالف للاطلاق بور جيخل وي رك متل وي رك وسيلا اي وسيلا رك لا دنگا والفعل وفاعل والفعل ماضي ونائب فاعل في محل جر بإضافة إذا إليها إذا موكو موكو باسكو إذا تي موسي لاغي لورون دوغو كون داف وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله جواب إذا دنجكو حذف لك جيتو موكو نتري موكو موكو موكو ليرال إذا وزلا بمد إذا وصلا بمدمر دنج مضافا فرفعون كرفا بالالف واي واخنا ارفع مسنى بالالف سنكو لا فلي دمير كون كي بو واخا لا فلي دمير موي نكو رفع الف فارفعون بالالف كوغماي جواب اذا وهو الذي عمل النصب في اذا مو نصب اذا كلتا مبتدا مرفوع وعلى مترفي دمة مقدرة على آخره كاف حرف جر ذا اسم إشارة مبني على السكون في آه، آه، دنجا آه، في محل رفع خبر مبتدا دنجا والكاف للخطاب كذلك كاف جوجل للخطاب اثنان مؤمن مبتدا مرفوع ولا مضر في الألف لأنه ملحق بالمثنى وحرف عطف اثنتان معطوف على اثنان والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مضر في ألف لأنه ملحق بالمثنى كاف حرف جر ابنين اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى دينغا دينغا واو دينغا حرف عطف ابنتين معطوف على ابنين والمعطوف على المجرور مجرور وعلى متجري الياء لأنه ملحق بالمثنى دينو يجريان اه، يجريان اه، فعل مضارع مرفوع بثبوت نون لأنه من أفعال خمسة وألف والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة في محل رفي خبره مبتدا دينغا امغا وسنان غوغو اسنان غوغو مبتدا لا يجريان من خبره اسنان وسنتان كبنين وابنتين يجريان ابنين غوغ جارك مجرور كابنين غوغ جارك مجرور متعلق بمحذوف دي حال شي دميرو فعل غوغو مي الف غوغو الف غوغو خني مي فاعل يجرياني حالا مي ابنين كبنين بير مني نيك كوم نياري رومي جيغن اي حال تكونين dafa mutaalliqun bi maxzuufin mooy xaalata kawnayni kabnayni dégg nga xaalata dégg nga kawnihi kabnayni wa wala wa kawnihima mooy isnaani wa isnataani wa taxlufu taxlufu waaw xarfu atfin taxlufu fi'l mudaari marfuun wa ramata fi addam zaahir raaqi alyaaw faa'ilu taxlufu marfuun bi dammatin muqaddara raaqi parce que alyaaw la woon ñu dagg أمزجة في حرف جر جميع اسم مجرور بفي ولا متجر الكسر ظاهر الآخرين الجار والمجرور متعلق بتخلف وهو مضاف ومجمع والهادم المتصل متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه دينغا في محل جر مضاف إليه الألف مفعول به شيء فعل تخلف منصوب ولا منسب الفتى الظاهر أو المقدر على آخره منع من ظهر اشتغال محل بحركة روي منع وي متحن سكون كوايد فور نصب دينغم جرا مفعول لأجله منصوب ولا منسب الفتى ظاهر آخره وحرف نصبا معطوف على جرا ومعطوف على منصوب منصوب ولا متجر الكسر ظاهر آخره بعد ظرف دينغا مكان متعلق بتخلفه وهو مدافن فتح مضاف إليه مجرور ولا متجر على الكسر ظاهر آخره قد حرف التحقيق ألف فعل ماضي مبني لمجهول ونائب فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو دنگ والجملة من الفعل ونائب فاعل في محل جر نعت ci fatu وخون waxoon nañ بعد نكرة دنگ نعت وبعد المعرفة حال ألف آه، آه، فتح كوك نكرة كون جملة بنيو نعت ليدون ورفع واو لسيناف لا ولا غني واو لسيناف ارفع فعل الامر مبني على السكون وفاعل دمي مستتر وجوبا تقدر انت باع جر واو اسم مجرور بالباء ولا متجر الكسره الظاهر على عقل الجار والمجرور متعلق بارفع واو عطف عرف عطف باع فجر يا اسم مجرور بالباء ولا متجر الكسره المقدره على اخره mana min zuhriha daruratu shari lor way moo tax waaye bi yaa in la waroon a doon al jaarul majruur mutaalliqun bi ujurut googu nga xam ne moo war a nekk ci kanamam ujurut fi'l amr mabni mabni ala sukun dégg nga wa faa'ilu damirun mustatirun wujuban taqdiru anta dégg nga wansib waa warfa atfu insib fi'l amr mabni ala sukun dégg nga wa faa'ilu damirun mustatirun تقديره أنت سالمة مفعول به دائما منصوب ولا منسب الفرد راقي مفعول به نك irfa ak ujurur ño dégg nga ak wan sib ñoo ci ñoo ci ki ñoo ci ñoo ko xëccoo waaye nag dañ ko dañoo jëfloo bu mujj ba mooy insib ndax moo ko gën a jege moo boobu moo ko nasab yeneen yi nag ñu def ci damir waaye xasab damir ba ndax damir bu daanaka bu ñëwut ci wax ji wax ji dana mat moo tax ñu xasal ko foofu saalima mafoonum bi ci fexlu intib mamsuun wala munasib alfar azari aqri wa jami mudaafiri majrurun wala mutajarri alkasra azari al aqri dégg nga amirin moom it jami ko it mudafili amirin moom it muda jami mudaaf la amirin mudaafili majrurun ولا متجر الكسر زائر عقري وعرفات مسلم المعطوف على عامر والمعطوف على مجرور مجرور ولا متجر الكسر زائر عقري وارفع في شبي معطوف على عامر اك مذنب ودنگ والمعطوف على مجرور مجرور ولا متجر الكسر زارق ومضاف زين مضاف اليه مجرور بيا لانه مسنى دنگ دنگ ولا ملحق بالمسنى ولا مبني على الياء في محل جر باسكو مم دنج كوي بنا اسم اشاره زين مضاف اليه مبني على الياء في محل جر آه، باسكو اسم اشاره وعرفات في با <coughs> آه، عرف جر هذا من المتصل من الكسر في محل جر بال با رنجا آه، الجار والمجرور متعلق بألحق جوج ولا يوحش كلامهم مشرونا مبتدأ مرفوع ولا مترفي الواو دنجم لأنه ملحق بجمع مذكر سالم ونون عوض عن التوين في مفرده واو عرف عرف باب معطوف على عشرون والمعطوف على المجرور المجرور المرفوع مرفوع ولا مترفع دم وضار آخره ومضاف هذا ضمير متسم من الدم في محل جري مضاف إليه ولحق فعل ماضي ممنون للمجهول مرفوع آه، ممنون للمجهول والنائب فاعل ضمير مستتر جواد تقديره هو والجملة آه، في محل رفع خبر مبتدا وباء عشرون مبتدا واي الحق مونيك خبرم قلنا بوك يا رابي نون وعرف عرف اعدون المعطوب عليه سنون والمعطوب على مرفوع مرفون ولا مطرف الواو لانه ملحق بجمع ذاك سالم قلو معطوف بحسب العاطفة لأنه حسب واو غريق وقلو لن يوران وقت معطوف على عشرون والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطرف الواو لأنه ملحق بجمع ذاك سالم واو عرفات فعلم المعطوف على عشرون والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطرف الواو لأنه ملحق بجمع ذاك سالم عليون وعرف عرف عليون معطوف على عشرون والمعطوف على المرفوع مرفوع وراء مترفي الواو لأنه مراقب جمع مذكر سالم وعرف عرف أردون معطوف على عشرون والمعطوف على المرفوع مرفوع وراء مترفي الواو لأنه مراقب جمع مذكر سالم أم نجي أردون وعرف عرف أردون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه مراقب جمع مذكر سالم شجر فعل ماضي من يحرف فتح وفعل دم مستن تقديره آه، هو في محل رفي والجملة في محل رفي خبر مبتدا ولي أردنا دين أمنا نيكو إعرابي نون دين أمنا نيكو إعرابي أردنا عطفك شيء ينشرونا شزونا كفان المادين بمني الفتح وفاعل دمير مستطرون تقدروا هو نعم، نورلين كإعرابي و أو عرف عطف سنون معطوف على ينشرونا والمعطوف على المفهوم مفهوم ولا مدرف أنواع لأنهم ملحقون بجمع مذكر سالم دين وعرف عطف مثل حال منصوب غير منصوب الفتى ظاهر الى اخره دنگ حال غوغ نك مي جوغي سي فاعل ساي آه، وصايب آه، الحال آه، الدمير المستتر في فعل يرد غوغو ورا نيو سي كرام دنگ هو مدافع مو مثل حين المدافع مجرور ولا مرتجل الكسر ظاهر قد حرف تقليل وقلنا قد نك تقليل نك تكسير mais fii xat xarfu taqlil la dégg nga bu duggee ci mudaaru dana nekk taqlil dana nekk taksir xat xarfu taqlil la yarid fi'l mudaaru marfuun wala mutar fii الضمة الظاهرة على آخره الضمة المقدرة على آخر منع من ظهرها اشتغال المحل بحركة روي li ko teree feeñ mooy mujj ga dégg nga sukkoon la laaj ndax way wi daa ismu ishaara mamnu ala sukkoon fi maali rafi faayil ci yari dugoogu الباب بدل ولا غن عطف بيان ولا غن نعت لي نيو غنا اسم اشاره من نكو يعني بدل ولا عطف بيان ولا نعت من نك الباب بدل او عطف بيان او نعت دنگن ونعت المرفوع مرفوع ولا ولا بوك بدل المرفوع مرفوع ولا ولا نعت ولا مرفوع مرفوع ولا مترفع الدم زائر على اخره وعرفت هو الدمير المتصل ممنوع على الفتح في محل في مبتدا دنگن عند ظرف آه، دنگن makaan dégg nga mansubun bil fatha zara ala axirihi wa zarfu mutaaliqun bi yattaridu gi nga xam ne moo nekk na la ci kanam wa mudaafu mu inda qawmin mudaafu ilayhi majrurun wala mustajir kasra zara axiri yattaridu fi'l mudaari marfuun wala mutarafi adama zara axiri wa fa'il damir mustatirun jawaazan taqdiru huwa dégg nga kon loolu moo di iraabu bayt yi xanaa ñu رب بيت بن جامع دعاني من الجن فإن سنينه لعبن بنا شيبا لنا مردا دعا فعل أمر مبني على عزب النون جانا إيه، إيه، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفي ربنا والألف دمير متصل مبني على السكون في محل رفي فاعل جنجا والنون للوقاية <coughs> xam nga fin amru bu ne damiru isnayn daf cee jokk dañ koy arab xasuf noonu wa noonu lil wiqaaya wal yaa damiru muttasil mu ñëla sukun fi maal nas bi mafhum bi min xarfu jar najdin ismu majrun bi min wala mutujari alkasra zaara axri dégg nga fa faawu taalil إن حرف توكيد ونصب سنين اسم إن منصوب ورامة نصب فتحة ظاهرة في آخره dégg nga ñoom noonu lañ koy arabee duyaa wal haa dégg nga damiru muttasilun mabni ala damm fi maxali jar bi sinin mudaafile nekk mudaafile laay ba feelu maat yi mabni ala sukkoon li tisaali bi noonu niswa am na beneen arab waaye nga arabee ko noonu benn la mabni ala sukkoon li tisaali bi noonu niswa noonu damiru muttasilun mabni ala fata fi maadara fi faayil am nañu koy arabee laay ba feelu maat yi نمنع على فتاة مقدرة على آخر المنع من ظهرها اشتغال المحل بالسكون العارض للاتصال بدون نسوة لولو لولو نكوش أجرومي بي ويران غيرا بغن يوم ما ينلعب نفعل أمر ممنع السكون للاتصال بدون نسوة كم نكون حواج سوساني جانغلي ñi dañuy wax ne fenn amrum dañ koy binal ci euh, euh Euh, le fi'lu maadi kon laayib na fi'lu maadi laa wax bëgg a wax dañuy wax ne fi'lu maadi dañ ko binaal ci ba foofu <coughs> bu ci noonu ni soo jokkee dañ koy sukkoon gaa waaye nag fata guñ na tere si lay nekk si mujj ga lay nekk laayib ba fi'lu maadi laa wax laayib ba fi'lu mu ñu al sukkoon li tisaare bi noonu ni a yomb am ko teree feeñ اشتغال محل موي سخلو بربي بسكون عارض سكون غارسي لي لي اتصالي بنو نسوا غير نو نسوا جوك ونون دمير على فضل في معالي رفي فاعل دينغا بعرف جرنا دمير المتسلمون على سكون في محل جر بالباء والجار ومجرور متعلق باللعب غوغو شيبا حال شي دمير ناغوغو بنا شيبا صاحب الحال مدمير ناغ حال منصوب ورا منصوب الفرا زائر اخي وعرفات سيبنا نعم، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالنون نسوة كم نكو إعرابي هون لغي ولكن سيبنا نعم، فعل ماضي مبني على فترة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال محل بالسكون عاري لأجل اتصاله بالنون نسوة دنجم نا دمير متصل مبني على الفترة في معنى رفي فاعل ناكو جكي جرين ناكو دمير ولا ناكو جكي نون نسوة نكو إعرابي ممنون على الفتح في معنى رفع فاعل لأن ناغوك ضمير متصل ممنون على السكون في محل نصب مفعول به ناغو نيك شيب نانا وكو نون نسوة نون نسوة ممنون على الفتح في معنى رفع فاعل ناغو نيال غوغنا ضمير متصل ممنون على السكون في محل نصب مفعول به لول ما وشيب نانا ناغو نيك نون نسوة ممنون على الفتح في محل رفع فاعل ناغو نيال damiru mutasim sukkoon fi mahal nasbi maf'ulun bi dafa am ñu wax ne fi'lu maadi dañ koy binaal ci fata ba faw saa yu ci leneen jokkoo it ba masque ba changé xamal ne fata buñ nattalee ca mujj ga la li ko teree feeñ mooy masque bi nga xam ne nii li jokk ci mujj gi fi'lu ga soxla na ko moo tax ñu changé masque fi'lu bu waaye nag fi'lu bi fata la xam nañu ne déedéet dafay changé danañ koy binaal ci fata danañ koy binaal sukkoon danañ koy binaal ci damm ala kulli xaalin wutee boobu amul solo إن أريد الإسلام واستطعت وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته